Uh, dossiers yi kon mel na ne ubbi tey jàng tey suñ ko defee bon fekk na ne boo jotee heure bi ñu ko def def a moom ni ñu ko joxee ren moo ëpp bu daaw xam naa ren moom ni ñu ko joxee bi e-, école boo xam ne ni xeneen euh, jox nañ la sa fourniture soobee yàlla sa élève xam naa fekkee dañ jënd bagage dootu bëri fooguma sañ jënd ndax bagage ren moom bëri na bu baax ndax ñu ngi sant maire bu baax di ko gërëm wax yàlla la taxawu na ci euh, école yi bu baax pour fourniture yi taxaw ci ni mu war a taxawee ndax bu ci amutoon taxawaay da doon toog ba école yi ubbi mu doo a joxe bagage waaye ba avant école di ubbee si la ko génne joxe ko ko ko gërëm nañ ko wasalaam jël ngeen critère de répartition fourniture yi mooy ni ñu tëralee fourniture yi euh, naa dañ ci liggéey aussi ak waa inspection dañ leen saisiroon ñu jox ñu effectif yi nga xam ne moom la école commune Fass Seck ngeen am ñu sukkandiku nag si effectif yi année scolaire 2018 2019 xam nga année scolaire 2019 2020 mën na bu ñoo xam effectif mais si effectif yooyu la ñu sukkandiku daal koy majoré moom moo ñuy permettre ñu am effectif yoo xam ni moom lañuy ñuy jotee distribution comme ni ko Babou Mané waxee nag wax yàlla ren ñaari kay mu jànge benn ardoise ak ñaari bi au moins lañ am na ñu ko ëppalee tey jii soo jëlee xale bi nga xam ne moom mooy dooro door jàng dina am benn ardoise dina am benn cahier double ligne dina am benn bic bleu dina am benn cahier de dessin dina am benn éponge dina am benn crayon noir élève nga xam ne moom mooy dooro door jàng nga jël si élève nga xam ne moom mooy def sem 2 war a def entrée en ak CFEE dina am trois cahiers cent pages dañ jum au lieu deux trois cahiers cent pages dina ko am dina am deux cahiers deux cent pages dina am benn bic bleu dina am benn bic rouge dina am benn bic vert dina am aussi matériel géométrique noonu nañ ko toppee ba classe bu ne dina am loolu loolu nag mu ngi dépendre aussi ci effectif école bu ne di nga gis ab école mu ëpp la effectif nga beneen école gën la mooy effectif mais si yenn catégorie euh, matériel yi ñu ëppale la par exemple si missal élève biy def CI ku am élève buy def CI doo am cahier 200 pages soo amul classe CM1 euh, wala CM2 moo am cahier 200 pages moo tax si bordereau de livraison yi di nga gis ay articles yoo xam ne dañ si defal zéro noonu lañ defee noonu lañ defee séddalin yi léegi ñu ñëw aussi si appui parce que séddalin yi du élèves yi rek dañ si boole aussi enseignants yi ak acteurs yi nga xam ni ñoom ñooy yëngatu si wàllu école si enseignants yi jox nañ leen fourniture de bureau jox nañ leen aussi matériel pédagogique boo xam ne moom la ñuy liggéeyee lu mel ni ay équerre ay rapporteur si de suite si de suite jox nañ leen aussi ay drapeau pour ñu mën koo monter seen école yi jox nañ leen aussi ay ballon de football pour seen euh, Euh, éducation physique yi ñuy def yooyu yëpp jagleel nañ ko fukki écoles yi nga xam ne ak ñaar yi nga xam ne ñoom ñoo ne si commune Mar Seck euh, inspection aussi dañ faral depuis presque man naa ni yàgg na dañ leen di jàppale pour que ñu man di def seen liggéey parce que dañu wax di def descente di ñëw si école yi te loolu aussi day laaj ay jumtukaay comme amuñu logistique boo xam ni dañ koy mettre à leur disposition li nga xam ni jagaleel nañu ko astu ci budget bi ñu yëkkati une enveloppe de cent mille francs jàppale ko IEF pour mu renforcer son pavillon am na aussi appui boo xam ne aussi dañ koy def union des CGE Babou Mané moom moo jël kàddu bi léegi wax ko union des CGE kuréel ga la goo xam ni moom moo ëmb CGE yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune Fass Sène yëpp te ñoom dañu am rôle bu am solo boo xam ni dañ koo war a taxawaay defe naa ne su préfet dina si ñëw su bay école yooyu yëpp ak sensibiliser ñu ñi pour ñu dugal seen doomi école ñu ne dinañ leen jàppale à hauteur de cinquante mille francs am na aussi ay produits désinfection yoo xam ni aussi comme école yi yàgg nañu def nañ ay évaluation standardisée yooyu aussi de laaj ay ay moyens commune bi aussi jël na dix rames de papier jàppale ko IEF pour liggéey boobu aussi pour jàppale étudiants yi seen subvention kon donc defe naa ni loolu la loo xam ni moom mooy li nga xam ni moom moo ëmb pour une distribution fourniture scolaire année scolaire 2019 2020 te di si yokk tuuti rek engagement la boo xam ni commune bi da ko jëloon bi ñu defee CNP ba fële si dëmul acteurs yëpp dañ fa daje woon commune bi ni man kat dinaa jël engagement boo xam ni su école ubbee dinaa joxe samay fourniture pour que slogan bi ñuy wax ubbi tey jàng tey mu nekk réalité si commune Fass Cekkeen kon donc monsieur le préfet def naa loolu leen gërëm bu baax a baax di gërëm euh, gërëm nag waa IEF ndax wax dëgg yàlla waa IEF dañ leen gë dañ leen da da berndeel ngërëm dañ leen gërëm bu baax a baax alaaji boo demee nag gërëm na leen bu baax sant na leen baax di gërëm tamit taalamaar ndax yaakaar naa moom jàpp na si bu baax a baax. Euh, ndax euh, euh, boo gisee fourniture fii da nga ko gis ba Taalamaan boo gisee budgétaire bi da nga ko gis Taalamaan mm. orientation bi da nga ci gis Taalamaan kon Taalamaan ñu tamit ñu ngi lay péré nuyoo bu baax a baax di gërëm nag wax dëgg yàlla les enseignants maîtres yi ngi leen di gërëm ñu ni tamit di leen sant ndax yaakaar naa lépp lu ñu wax ci ñoom ci njàngale ñu ngi koy def yaakaar naa tamit di gërëm les étudiants ndax. étudiants yi ñoom tamit danañ leen delloo danañ leen beral neloo ndax lu tax daal dañoo def fi benn des boo xam ne il faut ñu beral leen neloo ndax biñ leen joxee ñoom seen enveloppe ba dañoo wëlbatiku seet les meilleurs élèves ci commune Fass Cekkeen ñu ñëw def def jox leen ay récompense fii ci ci commune bi yaakaar naa loolu ñun woon nañu si fi lañ fi lañ toog ba ñu pare kon ñun tamit ñu ngi leen remercier bu baax a baax hmm. di remercier tamit wax dëgg yàlla campement Koungheul Socé bi ndax ñoom it wax dëgg yàlla jàpp nañ ci li mm. ñu jàppale bu baax ci fourniture yi kon yaakaar naa bu ñu toogee fii tey tamit ñoom danañ leen gërëm ñuy wax nag tamit ne mu des les parents d'élèves ndax les parents d'élèves ñoo sargaw yëpp ñoo war a dugal seen xale si njàng mi ñoo war a topp tamit njàng xale yi ndax dugal sa élève tamit ci école bi rek bàyyi ko rek waxuñ loolu ndax yaakaar naa tey fi ñuy waxee ni démb am na fu ñu woote woon ci préfecture taux Fass taux département Koungheul dafa tuuti ci examen kon wax nag ñuy ñaax parents bi parents d'élèves bi ñoo am message ndax maître am nañ ci war dugal mu jàng bu jàngut yaa ko war a mën a toppi mu jàng mu ngi jàng wala jàngut kon dama bëgg parents d'élèves bi Fass dégg ngeen inspecteur lu mu wax CM bu ñu ko bëggee suñu ko bëggee il faut ñu dugal ko élèves bi ni laaj bu ñu ko amul mënuñu am CM bu ñu doon muusa ko waane mënuñu am CM kon nañ dugal suñu élèves ñu jàng ñu dugg ci élèves yi bu baax a baax premier yi bëri fi CEM bi ñu mën a am conseil département ngi taxaw na Fatou Cekkeen bu ñu ay bu buñ amee CEM rek ko tabaxal kon nag nañ góorgóorlu ndax tax lu tax ma ne nuñ góorgóorlu maire wax dëgg fa yàlla lu li mu def lépp lu mu woon ak convention ak école yi moom tey def na ko ak nu mu mën a man teel na ko def te def na ko ñuy wax na moom heure boo xamee ne ñoom def na convention ak metre yi ci ubbite école inspecteur ñun danañ ko jox ak heure bu mu war heure bu teel bala école yi ubbi danañ ko génne ak nu mu waree jox ko élèves yi ñu jàng kon yaakaar naa foofu moom maire moom am foofu problème problème yi daal mu ngi si diggante enseignants yi ak maire ak parents d'élèves yi enseignants yi tamit nañuy teel a ñëw heure école bu ne kii am mu ne dafa am heure bu boo war a jàngale heure bu mu wax nañ ko démb heure bu manqué mënoo fexe fexe fexe ba bu résultat bu baax kon ñoom tamit nañ topp seen njàng topp seen bës suñ lebee ay bës nañ ko fay ci samedi ak dimanche ma ne maa ngi seetlu ne école sàmm ren amul samedi ak dimanche monsieur Laye daf ko waroon toog warutoon dem samedi ak dimanche amuñu ko weeru koor bu weeru koor bu dee bu ñu xëyee ñëw amul wàcc 6 heures la ñu wàcc rek ñëw na loolu maa ngi koy séddal fii ndax amoon naa si élèves yi nga xam ne ñu doon jàngee foofu mhm. ba yàlla def at ma ne ren dafa war a jàll jàng jàll ko kon moom dafa waroon toog ñu seedeel ko seede li nga xam ne moom def na ko si njàng mi ci sàmm dafa waroon toog waaye waru toon teel dem ñuy wax rek ne nag parents rek nañ jàppale nañ jàpp mu dëgër suñ jàppale mu dëgër ëllëg njëriñ li si génn ñun parents d'élèves bi de yaakaar naa su ñun lay ñëw ndax nga am sa doom ji muy jàng di jàng ba at ma dem di jàngale ji wala muy def la nag xaar bi yaa koy lekk maître bi nag dana sonn instant bi waaye yow yaa koy jëriñoo kon nag nañ nañ nañ dugal xale yi topp xale yi si njàng mi ba yàlla jàpp lañu ci bë fi ñu bëgg a jëm ñu jëm kon préfet man foofu laa amee sama kàddu di gërëm ñëpp di sant ñëpp wax dëgg yàlla heure ba xat na waaye ñu ngi bokk école Ndiaye Kounda ak Ndiaye Kounda te que li ñu bëgg mooy keneen ku ñu dimbale renforcer ñu beneen enseignant muy ñaari enseignant parce que am na ñoo xam ne woo na ki fay nii élèves yi mënul leen a jàngale na ñoo xam ne dañuy ñëw toog duñ jàng su ko defee nag parent su ko demee day seet doomam jàngul boo lëggee di dugg parce que xale bi ñëw école ba wàcc xamul dara loolu ba tey ñu ngi ciy ñaan dimbal daal pour ñu dimbali ñu ci enseignant parce que benn enseignant ko mënul jàngal élèves yu nekk njàngu la loolu ba ci démb dem naa et wax naa leen ok waaw. ci loo xam ne daf ñu ñu yombalal ñun suñu liggéey bi. parce que école xam nga ne compétence la boo xam ne dañ ko jox collectivité territoriale ñun inspection ñun ñooy seen bras technique loolu moo waral ci booru mois de juillet yi dañoo waxoon ne pour waajtaay ubbite école bi dinañ def ay CLD sous-préfet jàppale nit ñu toog daal di toog waxtaan ñu ne maire yi li ñuy xaar ci ñoom mooy nañu fexe fourniture yi ñëw ci école yi balaa ubbite école ubbite bi le premier la al kalaame bi ñu jëm pour enseignants yi le 3 pour élèves yi donc tey bi bu ñu toogee le 28 commune bi daal di def engagement respecte engagement bi mu jëloon loolu lu ñu mën a def mooy lu dul lu ko. dina monsieur le maire bu baax a baax et à travers monsieur le maire tout le conseil municipal de Fatick. di leen wax ne en tout cas taxawaay bi ak li ngeen def li respecté ngeen seen engagement donc di leen bu baax a baax. ngeen jottali kàddu gi monsieur le maire ak tout le conseil municipal. Mm. maintenant engagement yi ba tey collecte euh, CG yi wala UCG yi am na ay engagement yu ñu ci waxoon ci wàllu waajtaay pour éviter école bi. Mm. loolu président wax na président yi ñoo wax na mais dégguma fu mu koy wax fu mu ciy waxee. Mm. ñun nag dañu gën a soxla. maire bu defee engagement respecté engagement def li ko waroon. waroon nañu xaar ci monsieur président union yi ñu wax ñu école yi ci waajtaayu école yi fan lañ ci toll. Mm. parce que dañoo war a nettoyer école yi. Mm. dañ lañu war a nettoyer classe yi. war a defar arranger lépp loo xam ne dañ ko war a defar. ngir le trois. bu ñu yàlla may fekkee hmm. xale bu ñu ñëwee dañuy dugg parce que fu ñu fourniture am na hmm. kenn du wax ne du ma dem parce que aw ma këye hmm. wala aw ma ardoise wala aw ma leen ak leen yéen parents yi defal nañ leen monsieur le maire defal na leen li leen waroon donc loolu soxla nañu vraiment ngeen taxaw ci bu dee jeexagul engagement la woon donc nañu fexe ku nekk li nga jëloon comme engagement nga respecté ko te tey monsieur le maire ak tout le conseil municipal wane na ne ñoom respecté nañ seen ñun tamit suñu engagement mooy li fi nekkoon comme engagement mooy pexe jàngalekat yi nekk fi avant la rentrée te loolu ñu ngi ciy taxaw ñu ngi ciy def ay émission ñu ngi ciy def ay note ñu ngi ciy def lépp loo xam ne war nañu ñun ci wàllu inspection bi ñu ngi koy def ngir premier enseignant yi mën a teew le trois ñu mën a nekk foofu donc lu ñu leen di ñaan yéen waa comité de gestion yi ak union yi mooy ngeen pexe terminer wàccaay classe école yi ak classe yi mais aussi pexe yi daal di ñëw ci école mm-hmm. parce que dañoo wax jàngalekat yi même bu dee benn élève moo ñëw jour bi bi nañu commencé benn élève boobu mm-hmm. que bu bu ba doomam ñëw waruñ ko delloo mu ñu di déedéet même dee benn élève démb def nañu ne wax nañu même dee benn élève moo teew nañu fexe ñu daal jàpp élève boobu commencé ak kooku parce kooku def na effort mm-hmm. donc loolu nag yéen a ngi war a jàppale yéen parents yi chef de village ñu ngi fii dinañ am yeneen waxtaan yoo xam waxtaan mais pour le moment li leen di ñaan fépp foo xam ne jotaay am na na ngeen ko waxtaanee. xale yi nañu fexe dem école parce que commune Fass Thiékène département Koungheul warul nekk ci ginnaaw par rapport à d' yeneen contrées. Mm. donc li nekk ci Sénégalais benn Sénégalais la. couverture bi le trois la pour élèves yi dañoo war a ñun ñëpp ñu daal di taxaw loolu ngir couverture bi mën a am monsieur le maire et la commune le conseil ñu ngi leen di remercier bu baax a baax remerciement bi parce que dangeen ngeen gestu bi gestu école bi gestu enseignants yi mais aussi daal di gestu communauté bi union CGE yi mais aussi daal di gestuwaat inspection parce que ñooñu ñoo ŋànk wàllu école wàllu éducation donc soo leen di def seen répartition yi fourniture yi ngeen def ak dotation ngeen xalaat ñu ci loolu vraiment lu ñu lu ñu lu ñu mën mooy di leen remercier bu baax a baax a baax taxawaay boobu di ñaan yàlla li ñu investir ci suñu doom yi li ñu investir ci suñu xale yi yàlla nañu yàlla yàlla yàlla may ndam ba ñu toogaat beneen at ak yeneen at dinaan ah li ñu defoon ci suñu doom yi ak suñu école bi rëcce wuñ ko vraiment ñu ngi leen di baalu ak di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ñu tàmbali bisimilahi rahmaani rahim ci année scolaire mu ne eggale alhamdulilah ci année scolaire di leen fàttali benn promesse bu ñu defoon ci clôture SNEP bi bu soobee yàlla ren Fass Cekkeen dina nekk centre examen comme ni ñu ko waxee woon dèjà jox nañu compte ñu pour que li ci des mooy wàllu collège waxoon naa leen ko. dama koy waxaat soo leen bëggee am collège il mm. ngeen jàngale xale yi mm. xale yi bu ñu jàngee bëri bi mm. kenn mënu tere ñu bi leen collège parce que fu mu nekk nii yéen rek ak yaa yéen yéen a des te loolu pardon voilà ribo te li ci des mooy ci yéen la boo leen def rek ñun ñu defal leen boo leen def rek boo leen ci tegee seen rek ñun ñu ñëw jàppale leen loolu laa amoon ci kàddu yi euh, yi fi nekk côté bi di CGE yi chef de village ak étudiants yi kenn ku ne vraiment ngi leen di ak sa sant di aussi euh, doole di sant yàlla bu baax moom mi nga xam ne moo ñu may ñu teewaat bi ren pratiquement même place ak presque même heure heure bii daaw lañ fi nekkoon yàlla may ñu ren dellusiwaat bi ko ci sant bu baax a baax li ñu fi dajale nag. Euh, engagement bi la boo xam ne euh, maire yi jëloon nañ ko waxoon nañ ca CRD du 30 juillet bu ñu organisé woon ci demoo ci ak yéen bu soobee yàlla balaa école xale yi dem école jumtuwaay nañ woon loolu moo ñëw firndeel ubbi tey jàng tey parce que ubbi tey yomb na mais peut-être jàng moo dul yomb jàng bi nag souvent li koy gàllankoor mooy jumtuwaay tey nag yaakaar naa ne élève bu nga xam ne yaa ngi ci commune Fass Cekkeen même bu dee benn ardoise sax nañ la ko jox pour boo demee nga toog am boobu loolu déjà sant yàlla bu baax baax waaw loolu engagement yi nga xam ne collectivité territoriale yi nañ ko ca CDE te respecté nañ ko tey ñu ngi gërëm encore une fois de plus conseil municipal vraiment bu Fass Cekkeen ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci éducation ñun 2017 ba léegi ñu gisul wax dëgg yaakaar naa gis nañu bu baax a baax commune Fass Cekkeen ak commune Demoury ak commune Saly vraiment ñuy def ci système éducatif bi loolu nag ñun buñ ko amee vraiment dañ ciy dolli sant yàlla di dolli aussi ñaax enseignants ak parents yi ñu xam ne mbir mi euh, état moom dina yóbbu dina tabax dina wut ay table banc dina wut jàngalekat mais parent d'élève moom moo jël xale bi yóbbu ko te léegi nag école obligatoire la pour xale yi képp ku am at pour dem école rek dañ ko woon obligation la képp ku war a dem école rek am nga école bu yóbbu pour l'école bu njëkk ba xale da doon toog du mun a jàngi parce que école bi dafa sori ak dëkkam léegi daanaka boo xoolee Sénégal léegi changé parce que léegi da ngay yeewu sa kër rek dugg sa école wàcc jotee nga wàcc. mais bu njëkk ba da nga ko doon fii parce que dem dénkaane ci doomam Kaffrine wala Kaolack parce que école amul Sénégal nag yàlla di def mu dox bu léegi vraiment boo yeewoo rek xale bu yeewoo rek mën na dem dugg ñëwaat loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax loolu vraiment ay jéego la nguur deful dara mais nguur bu tabaxee école fay jàngale indi ay table blanc mais wax dëgg léegi nag jóg indi yeneen jumtuwaay jaarale ko ci maire yi ne leen ji école yee ko moom maire yi aussi def seen kéem lay kattan teg ko ko wax dëgg sa presque jaanam wàcc léegi nag parents d'élèves yi ñoom nañu libéré xale yi ñu dem ci école yi kii yëpp am na wax jum fi am wax sànq dafa am solo trop nee na leen bu fekkee ne bëgg ngeen seet na xale yi jàng cela veut dire que taux fréquentation école Fass Cekkeen dafa faible dafa néew lim bi dafa neew ci xale yi nga xam ne war na dem école école yi nag manqué wu fi mais problème bi mooy parents yi ñoo pareegul pour yóbbu xale yi dem jàngi deux mille dix neuf xaw na a dem école na dem njàng <coughs> am na solo foofu ci dëkk nañ ci bàyyi xel bu baax baax bëggoon naa aussi IEF euh, yeneen jamono yu ñëw euh, bu ñuy defat ñu mel nii ñu fexe am ñaar wala ñetti élèves ci gouvernement scolaire ñu ñëw teewal ci seen borom ñu xam exactement mbir mi naka lay doon c'est important loolu yëpp jàngale doon ci xale yi pour ñoom bu subaa ak gannaaw suba nañu xam taxawaay parce que ñoo am nañ kuréel yi nga xam ne mu ngi ci école yi am na ñu leen jiite war nañ mun am ñaar wala ñetti élèves ñu représenté tey élèves commune Fass Cekkeen mun a teew fi gis mag li ñuy def xale yooyu loolu dana leen yaakaar naa dana leen ñaax te danañ tax ñu gën a góorgóorluwaat bu ñu weesoo loolu jàngalekat yi aussi vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant di di ñaan aussi IEF mu dimbali pour que Fass Cekkeen am parce que boo xoolee euh, présence sociale bi tey bu codec amoon rek peut être dina am ñu ko enseignant a am doole malheureusement nag commune Fass Cekkeen bu léegi amul codec Saly boo demee am na codec Idda Mouride am na codec mm. mais Fass Cekkeen bu léegi amul codec loolu nag aussi yeef man moom suma presque revendication la doon ci man de dama bëgg vraiment ngeen dimbali ñu côté Fass Cekkeen am comme ça a yomb waaw liggéey dina yomb à tous les waaw bu loolu weesoo aussi euh, ñu euh, góorgóorluwaat vraiment ci mbirum nañ góorgóorlu yàlla def na yeef nee na bu déwénee incha allah Fass dina am centre d'examen Mm. promesse bu mu waxoon fii la woon doléance la woon mm. yëpp bu soobee la dinaa ci taxaw te yàlla def yëpp ne loolu doléance boobu nga xam ne waxoon ngeen ko mm. saafarawu loolu ñu ngi ko ciy sant aussi ko di que aussi vraiment ñu ngi def liggéey bu mucc ay ci biir euh, département na peere Koungheul moo ko dox loolu yëpp ngi ni moom mooy technicien bi moom gën a xarañ parce que loolu ci loolu lañ ko tàggat moom mooy technicien éducation tey lépp lu nit war def ci éducation boo tegee yëpp boo moytuwul ci géej gi nga def da ngay da ndox parce que moom lañ tàggat pour loolu moom mooy bi lépp xam ne wàllu éducation la yëpp mu nga moom bu ngeen waxtaanee ak moom dina ñëw ah ko dañ def loolu moo tax ñu nekk koo gis nag dafa am loo xam ne moom lañ ko dégg éducation bi jeex lañ ko dem boo demee santé bi dañ ko jox ICP dañ ko jox médecin chef ñu góorgóorlu ci nag aussi bàyyi ci xel bu baax a baax te souvent dama koy faral di man ma ne leen euh, boo demee ci commune Fass Thiékène dafa am buntu booy duggee ak buntu booy génnee dafa am kër goo gis aussi nañ waxante dëgg dafa am boobu kër kenn ci ñun fii toog fii nangu ni tey dugg sa biir kër réglé la muy réglé romb la nuyu la benn kilifa nangu foo dem nag dafa am kilifa léeg sax ñu sànni ñu ay xeer ñu ne ñoom préfet maire lañu am ànduñoo ak maire dañuy liggéey ensemble nguur moo ñu fi teg pour ñu liggéey ñun ñëpp dañuy jaamu askan bi maire askan bi ñoo ko teg pour commune bi ñun président moo fi teg askan bi moo tax ñu nekk fii pour arrondissement bi boo ñëwee ci arrondissement bi da nga ne sous-préfet salaamaaleykum mu ne la maaleykum salaam boo ñëwee ci commune bi nga ne maire salaamaaleykum mu ne la maaleykum salaam boo ñëwee ci village bi nga ne chef du village salaamaaleykum salaam loolu dañ ci bàyyi jaaf leen neex bu préfet réagir wala préfet wax ñu ne préfet préfet laa mel préfet à la cour d'Alli mu liggéey ak maire maire à la cour d'Alli mu liggéey ak préfet nguur noonu lay doxee ñu xam loolu léegi nag aussi ñu bàyyi ci xel commune bi commune Fass Cekkeen yéen yéen a fi nekk yéen la askan wi fal bu leen askan wi falee bu pare nag man dama koy waxee souvent ku yoroon mbubb bu xonq wala bu ñuul wala bu vert wala bu bleu summi ko nga bàyyi ko kër ga sol bu mu weex weex bi mooy développement loolu moo tax ñu fal leen nañ bàyyi xel ci loolu politique nag bu jotee kenn ku ne sol sa bopp kenn ku ne nga mais bu jeexee nañ xam ne jeex mais nag ñu Sénégal bi ñu xaw a tabel mooy dañuy politique bu àdduna tukki na fu mu yem jeexee nañ xam ne jeex ñun ñëpp ñu liggéeyal démb image bi ñu won démb ci ci ci mosquée bi. Massalikul Jinaan mhm. waaw vraiment image boobu dafa dafa am doole. Macky Sall ak ay benn image dafa am doole te Sénégal loolu la Sénégal Sénégalais xamul histoire xamul coow ñun yaruñ ci loolu xamuñu ko nañu góorgóorlu kenn ku ne responsabilité bu ñu la jox nga góorgóorlu vraiment liggéey ci mu mun a dem kanam Sénégal mun a avancer kenn ku ne gis sa bopp parents d'élèves bi encore une fois de plus. Euh, collectivité territoriale bi joxe na ay fournitures yépp fii ak fan yu néew am na déjà yu ñu affecté fii ak fan yu am na je crois que nouvelle génération bu équipe bi ci lañ génn nañ affecté fépp ci manqué jàngalekat yépp na ko yónnee jàngalekat parents d'élèves nag bu boobaa fexe leen élèves yi ngeen bàyyi xale yi dem ci bu njëkk ba ñun peut-être chance bi ñu amoon ñun suñu papa dañu téye suñu loxo yóbbu ñu mais daanaka du ko amatul te loolu fexeel suqaliwaat parce que day jox gëdd affaire bu njëkk ba ñun suñu papa dañ ñoo téye loxo ñoo élève yóbbu ñu école waaw di béy c'est comme ça léegi nag pratiquement loolu ko bàyyi te yooyu nag am na solo parce que xam nga xale sa papa na nga nekk sa papa ngeen dem ba sa ba loolu lu rëy dama ko wax fii parce que nañ bàyyi xel ci loolu léeg-léeg am sa doom mu dem mu nekk ci école bi léegi léeg chaque jour mu ñëw ne la bu ñëw fekk na xale bu demee bu jub école bi rek tourné ñu gis léeg-léeg euh, dina yor sa doom ba école tëj doo xam sax monsieur bi ndax dafa xees ndax dafa ñuul ndax jullit la ndax catholique la ndax chrétien la ndax athée la ndax juif la doo ci xam dara doo ci xam dara loolu nag baaxul ki nga xam ne mu ngi tàggat sa doom war nga ko nemmeeku nga xam mooy kan boo ñëwee mu ne la ah sa doom ji de weer ba di passé vraiment jàng moom dégloon dafa wàññi xëy na am na koy dóor ci kër ga na am na lu ngeen ko def bu fit bi xaw a laaxu yooyu c'est important ñu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax loolu moo mun tax système bi dox kenn ku dem ci am cër loolu nañ bu baax a loolu moo tax système bi bu ñu ko defee kenn ku ne vraiment bu taxawaaye taxaw bu mu war a taxaw rek yaakaar naa lépp dina yokk encore une fois de plus aussi vraiment di gërëm aussi ASC ak président zone yi ak CCG ak APE yi parce que vraiment je pense que euh, depuis barki tey dama Tounkara woo ne ma préfet engagement bi nga xam yi jëlal nañ ko vraiment ca CRD ba yaakaar naa presque ma à part ci kenn c' est presque respecté différent bi mu ni mu demal kii fekk ko kii fekk ko mais par rapport ak ñun gis li ñu gis Fass Cekkeen vraiment déjà assurance lay jox ñu leen di ñaax ci loolu nag aussi école bi seen école la dañ ko nguur moo leen ko tabax bu yàqu naam ñaan ñu ko am nañ ci responsabilité mais responsabilité bi ëpp ci yéen lay doon parce que yéen ne ne nguur soxla nañ école ba nguur tabax leen école des nag aussi léegi pour école bi set xale yi jàng loolu moom seen cër la fu ci am gàllalu koor aussi yëpp ko yëgee ñu yëg ko nañ ci wut safar waaw nañ ci bàyyi xel bu bu bu bu baax a baax aussi léegi euh, école Kër Ablaye Fanta c' est ñu doon solution école bi nga xam ne maan daana daanaka dafa tëj xaw na doy trop waaye école bu tëj moom école boo xam ne dafa tëj moom ndax élève man de loolu vraiment souvent waxee rek suma xol bi day day métti waaw parce que njàng vraiment dafa am solo trop quoi école boobu nag faute d'effectif la élèves yi am na ñaari dëkk yu wër école mais daanaka population bi ñoo nangul bàyyi élèves yi ñu dem école garab lay fanta école baa ngi boo rombee tali ba rek nga gis ko dafa tëj loolu nag doy na war taw. ah ñetti dëkk. waaw ñetti dëkk. voilà voilà c'est ça vraiment loolu man daal vraiment ça ça me fait mal quoi daf muy métti quoi loolu daal bëgg naa ñun ñëpp ñu xool ak IEF ak collectivité territoriale yëpp ak seen village ñu xool naka la ñu mën a defee saafara bu bu fekkee ne dañuy dem waxtaan ak. waaw dëkk yooyu sax bu leen di woon daje sax bu fekkee def délégation sax. waaw mooy def yaakaar naa ne même plan d'action bi ngeen def. il serait bon que euh, euh, yéen ñu def benn jour ànd ak ñun ñëpp. Mm. ak chef du village bi dem pour waxtaan ak gars yi. Mm. xëy na bu waxtaan ak ñoom saafara dina ci am. Mm. parce que responsable.